ànd ak euh, Oumy Samb Oumy maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax. naka suba si. ça va douzième gaynde non non bi tey la <laughs> tey bonjour à toute l'équipe et puis mbokk euh, téléspectateurs yi maa ngi leen di nuyu ñu ànd si xibaaru jaww ji donc si suba gi dafa euh, xaw a liw tuuti euh, ci partie ouest bi principalement je vais dire plutôt bët gànnaar mhm. jëm sow température yi ñu ngi koy démontrer bu baax 17 degré la ñuy am minimum bi à Thiès 18 à Dakar 18 à Saint-Louis 18 à Louga 18 Fatick 21 à Diourbel dina ànd ak euh, benn un léger vent. principalement sur la façade atlantique c'est-à-dire booru Dakar bi foofu ngelaw ba dinañ ko fa nemmeeku mais bu ñu demee ba après-midi bi ay 15 heures noonu ça va s'intensifier par contre le vent et puis dans la partie centre-est température elles sont croissantes on a 24 degrés à Kaffrine à Kolda à Tambacounda à Matam et degrés pour Kédougou température maximale ci suba gi dem après-midi. Mhm. bu ñu añee ba pare ngoon balaa ñuy dem euh, cette année match euh, température euh, yi ñu ngi la minimale pour Dakar. Mhm. Euh, alizé maritime yaa ngi foofu euh, di jouer seen rôle a baax parce yi mënul de deux presque trois semaines ah. Dakar moom moins de 25 degrés moins de 27 degrés même lay am 26 degré dinañ ko am à Saint-Louis 30 à Thiès 33 pour Louga cinq à Fatick et puis centre euh, est bi euh, température yi dafay yéeg 42 Matam 43 Kaffrine 42 Kolda 44 Tambacounda et puis Kédougou tey moom. 39 euh, degré la am moo tàmmoon di am température bi gën a kawee ci suba gi mais tey ce n'est pas le cas asamaan soo xam ne ci centre bi centre le sud. allant vers le centre euh, asamaan si leer na nañ amul benn niir yuy doxantu mais côté bët gànnaar bi foofu dox euh, niir yaa ngi fay doxantu bu baax a baax bu ñu fàtte ni ko vers 17 euh, dina am ngelaw bu xaw a fort tuuti forte intensité le vent donc moytu leen naa ah, ngeen. jël seen yóbbaale ay ci <laughs> ñu dem géej. marée haute 7h23 lañ koy nemmeeku c'était à peu près 5 minutes dinañ ko amaat 19h37 marée basse 1h10 et puis euh, à mu ngi fii ah ba tey demagul c'est avis bi ça va jusqu'à demain allah donc on va voir si ça continue ou ñu bàyyi yoonu géej bi tuuti. Mm-hmm. ñu bi fenk na ci 7h07 dina soo à 19h22 minutes. Mm-hmm. tey nag les lions ils vont jouer euh, cet après-midi sous 36 degrés. temps bi bokkul ak euh, suñ seen match aller bi. Mhm. on je sais pas euh, si ça sera. on la ça sera pas trop en leur faveur hein. quand il fait chaud c'est pas terrible de jouer mais. am nañ yaakaar bu baax a baax et puis euh, yàlla baax na. yàlla baax na mm. tey on fait la Saint Gladys également donc je vous souhaite euh, une très très belle euh, journée à toutes les Gladys. Ouais, n'est-ce pas Marcel merci beaucoup <laughs> Oumy Samb à tout à l'heure inchallah pour météo express bi am nga étoile te aw ma étoile duma la ko baal. secret a étoile bi secret la. <laughs> à tout à l'heure Oumy <laughs>